ñu lay ziar sa waay. yàlla yàlla na nga nañ ko daaw waa ah, waa Damel de Tivaouane euh, ren aussi ngeen defaat li nga xamante ni mooy euh, teraanga yu bari ngeen indi ko ci euh, bàqya bi nga xamante ni sëñ Babacar Sy Mouhamadoul Mansour moo joxe ndigal jeunesse bi yëpp ànd ñëw waaye waa Damel ñëw def participation bu mag bi ngeen ànd ko ñëw lan moo waral test bi. salaamaaleykum El Hadj ñu ngi ziar waa Tivaouane yëpp di jiital xalif bi sëñ Babacar Mansour di ko ñaanal yàlla dolli ko wér liggéey bi mu sumb mu àggal ci jàmm. waaye El lii nii ba fii nii bu ñu fi wootee ñu ñoo fa war a jiitu parce ñun nangu nañu fii mooy këru këru dëgg fii suñu suñu place la comme wala bu ñu fi wootee dañuy sawar ñëw fii def fii bu ñu ñëwee nag am ñu ñuy jàppale ci liggéey bi dafay jaadu ñun ñu dajale li ñu am jox ko ngir ñu ngir ngir ñu mën a serlu waa Damel de Tivaouane nag ñoom ñoo booloo ak supporters yi ak ñëpp groupe bi dajale ay centaine de mille jënd ko ay banaana ay fruits ay lépp ay banaana ay boisson yëpp yëpp dajale ko indi waat ko fii pour joxaal ko jaa taalibe yi nga xam ne nit ñi nga xam ne nga ñëw uniquement pour jàppale ñu ci liggéey bi nga xam ne kenn ku nekk ku dëkk Tiwaawan wala laa war yow kese kon boo amee ci la ci jàppale nag day jaadu nga ñëw jox leen lu leen sarloo loolu moo waral liggéey bi ñu indi ko tey nii mais li ma gis da nga cotisé gis naa ñu cotisé ay 12500 am ngeen xaalis de waaw fii moo ñu ko jaral fii moo suñu këru dëgg fii woñ ko jaral lépp la ay lay def ay caaxaan la fii mooy këru dëgg ñun dañuy ñun ñuy dox ak ci fulla farata ak fulla mooy fii nii lu mu set set set lu mu jag jag jag ñun ñoo ko moom leen li jës yëpp luñ mën nañ ko waxtaane mais fii moom këru dëgg la donc li gars yi di cotiser ko ñu ko xeeb torop nag di la ko wax xeeb nañ ko torop bu ñu sañoon leen la ñuy defar romb fii nii te waa damel de Tivaouane ak supporters yëpp booloo pour Tivaouane incha allah dinañ def leneen fii nii waxuma ci barab bi de ci zone bi yëpp nii am nañ fi waajal loo xam incha allah nañ ñaanal yàlla ci barke gàmmu gi ñu jëm sama borom sotti pour yéegaat. première division ngeen jëm. ah ça dépend ci yow rek boo ko. jëm ah amiin waay ñëw ngeen ren. Ah. première division ngeen jëm. amiin amiin El Hadj. leen di sant di leen gërëm. di